Ousmane Sonko mi ngi ñëw da xam ne message boobu moo mën a leeral mbir yeeg yooyu message boobu bi ñu ko laajee anamu dañuy daf ni supprimer na ko Ousmane Sonko ne loolu daf may setal te dañ koo dindi ma jàpp ne man xalaatu enquêteur mënta setal kenn waaye nañ jàpp ne da koy setal su fekkee daf koy setal kon set na wecc ndax lii mu ngi ci procès verbal bi bi muy wax naan baaxul ni mu nekk fii. ak place bi mu nekk fii muy première position noonu la nekkee fee ma nga fa dara dañul xanaa lii lu bees la ci yéen parce que gis naa ne bu may booy déglu Sénégalais yi ak ngay seetanteel kenn werantewul ni changé nañ ko ñëpp dañu ah non non moom kay changé na ko ndax sëñ Bass ko changé wala changé wu kay la seet ak bi nga ko changé lu tax mu changé ko mais naan kenn changé wu maa ngi leen di waxal fii ni leen maa ngi défier Ousmane Sonko pour mu génne page am bi jox yoo xam ne yu na leen ko wan mi ngi ci bu njëkk bi boobu mi ngi ci kon bu fekkee loolu daf koy setal dindi wuñ ko mi ngi ci xam naa daf ko dafa liir lu bëri ma nga ca mu ñëw ci deuxième bi xal mooy Aïssata Ba mi ñu wax ni moom ñaar ñoo doon maase Ousmane Sonko dafa jékki-jékki génn bàyyi leen maanaam Adji saar mi nga xam ni daf ni dañu koy violer moom moo organisé ba kee génn ni loolu doy na waar man weddiwuma ni doy na waar néewuma doy na waar waxuma ci dara li may wax xam nga mooy lan mooy daf ne dañ koo génn ci PV bi loolu ay sos la loolu mi ngi ci PV bi ba léegi PV bii maa xam jàll yor ba renvoyé ci Ousmane Sonko soo ko demee di nga ko ca fekk problème bi mooy fii ci deuxième position la ñëw fële mooy ñaari ligne yi mujj détail laa lay jox xanaa soo demee jël PV bi nekk ci dossier bi bi Sonko ni boobu mooy bi ñu falsifié daal bii mooy bu baax bi li nekk fii ci deuxième po ci ñaareelu argument bi Ousmane Sonko wax loolu moo nekk fee maanaam mooy aji Sarr wéetal na wéetoo na ak Ousmane Sonko kon mi ngi fi kenn dindiwu su fekkee kon loolu lu koy setal la doy na waar wala doyul waar man du ma dugg ci yooyu mais dama leen bëgg a xam fekk loolu moo koy setal kon set na parce que ma nga fa dañu mu des ñetteel bi ñetteel bi ma ci wax du bari parce que yéen sax ba mu koy wax ci télé bi dafa commencé liir xam naa daf ko Ahmed Mbaye daal di ci mbiri Sidi Ahmed mbay mu ne loolu daf koy setal loolu su ma sañoon du ci wax parce que dama ne man ñëw ma fii pour charger mais soo ci waxul ñu ne ñaar yee mu nekk à l'aise gat wax na ci mais bii nekku ci à l'aise moo tax waxu ci mais boobu comme ci PV Ousmane Sonko la nekk nekkul ci bee xaaral ma liiral leen ko li leen Ousmane Sonko woon ker ni loolu dafa koy setal nañ ko liir dafa ne dans sa déclaration monsieur Sid Ahmed Mbaye reconnaît que c'est lui-même qui a demandé à Adji Sarr d'attendre d'avoir des preuves solides pour agir À maintes reprises, il s'est érigé en sentinelle devant l'Institut, attendant que M. Ousmane Sonko morde à l'hameçon. Le mardi 2 février 2021, il est resté à l'écoute. Lorsque Sonko est arrivé, Adissar a tout fait pour se retrouver seul avec lui. Madame Daphne, capitaine bi def lii daf ni Sidi Mouhamed Mbaye nee na bi ko Adji Sarr ne Ousmane Sonko maanaam boobu ñuy wax ci affaire Ousmane Sonko dafa ma violé violé moom nee na mu ko da ngay xaar ba am ay preuve yu wóor waaw ki ni xaaral ba am preuve yu wóor loolu day seetal Ousmane Sonko ku ne xaaral am ay preuve xanaa kon dafa am am na kon Sidi Mouhamed Mbaye seetalu dafay wut kee mais seetalu ko nee na mu ne Sidi Mouhamed Mbaye nag Ousmane Sonko ay yoon yoon woon for bëggoon ko jàpp loolu day seetal Ousmane Sonko kilifa bu toll nii moom waxul ni bi mu koy seet dafa dem ci buntu jàkka ji waxul ni bi mu koy seet dafa dem ci buntu école doomam waxul ni bi mu koy seet daf ko seet buntu kër procureur mais daf ne bi mu koy seet moom suite boote la ko doon seete loolu day seetal Ousmane Sonko man jàpp naa ne loolu seetalul Ousmane Sonko su ko dugalul seetalu mais comme li ma wax sànq dama jàpp di waxu enquêteur xalaatu enquêteur setalul Ousmane Sonko dugalul Ousmane Sonko mais bii xam ngeen ni dugal la gën a jege setal mais mu yokku ci mooy li mujj mu ni bi Ousmane Sonko ñëwee ba dugg Adji Sarr def na lépp ba wéet ak moom loolu Sidi Mohamed Mbaye wax Ousmane Sonko dafa weddi ni moom ñaar nit ñoo ko doon maase Sidi Mohamed Mbaye ni ko noonu yéen ñaar wéet ngeen mu ne loolu daf koy setal kon ñaar am na Ousmane àndul ak sagom wala liirul lii parce que dossier bi effectivement lii maa ngi la wax bi ma koy lire très sérieusement lii ak yeneen affaire bëgguma ci parce que j'ai l'impression que ni parfois da ngay xam ne Ousmane mii ça mais noo mën a waxee lii nii dafa lay seetal yow koy lii da ko war a denc yéen bu ñu ko génnee wala xëy na donc comme moom dafa may complot xëy na dafa bëgg Adji Sarr porter ñu plainte ndax lii Ousmane ko lay seetal te newul ci PV kon Adji Sarr wala El Hadj Diouf kay ñoo war a porter plainte fii mais du Ousmane Sonko parce que fii dañ ñu ko yow Ousmane yow miñ ni Ousmane mu sell mi biñ lay seet suite boote lañ la seet seete wuñ la gànn mosquée de seete ci benn zaaw yi du sax école doom du feneen yow daal man seet naa la ay yoon buntu suite boote laa xaar rek la seet mais loolu loolu wax ju ñaaw la mu ne moom loolu daf ko seetal ah mais très bien mais loolu bu fekkee am na kuy porter plainte yaakaar naa Adji Sarr moo ci war a porter plainte li yéen lii taxal Ousmane Sonko deen ko génne gis ngeen lii de moo fi am ñaari weeram lu topp ñu may saaga lu ne wax nañ dafa changé dafa changé lu mu changé ñetti affaire message su Adji bi wan naa leen ne mi ngi ci mi ngi ci dossier bi Aïssata dafa leen a wéetal mi ngi ci dossier bi ñetteel bi moom Sidou Mohamed Mbaye dafa sa dafa mel ni kuy chargé Ousmane Sonko mais man jàpp naa ni ci waxu gendarme bu fekkoon wax na ko feneen du am problème mais bu fekkee comme xalaatu euh, euh, capitaine bi doon def la man jàpp naa ni seetalul weer euh, seetalul waaye aussi chargé wul dama bëgg équitable kon gis nga ne ñett yi doon wax dañ ko soppi ci PV bi dara soppeeku ci waaye dafa am lu mu leen waxul. léegi bi may commencé lire PV bi leen Ousmane Sonko wax man PV Ousmane Sonko laay wax ba léegi de waxuma bi nekk ci dossier bi kii bi mu nee benn concernant les déclaration de Adji de la victime maanaam déclaration Adji Sarr bi mu nee dafa am ay contradiction dafa ni ci côté Adji Sarr lii moo ci euh, ci déclaration Adji Sarr lii moo ci contradiction mooy ñett yi ma leen woon Ousmane Sonko ni woon daf koy setal won naa leen ñaar yi mi ngi ci benn bi daf koy taxal mais yamul foofu waa ji dani ñaar ci côté Ousmane Sonko nag am na tam yu xaw a doy waar daal di wax juróom-benn affaire juróom-benn affaire yi mu wax ñeent yi moom gis nañ ko fee moom ci PV procès verbal bi nga xam moom la maa xam jàll yoon maanaam juróom ñeent yi ñu jàpp ni moom dafa dafa xaw a doy waar ci côté Ousmane Sonko mi ngi fee mais dafa am ñaar yoo xam ne nii. ci côté Ousmane Sonko la ko capitaine de defoon yooyu nekkul ci PVB dañ na kon kay boobu amee complot xanaa Ousmane moomu complot fexe ba lii gën parce que ñaar yii ñu dindi te newul fee te nekk ci PV bi Ousmane Sonko yor te liiru xam naa ne daf ko liir mais euh, yaakaar naa du ko mas a liir ci seen kanam ñaar yooyu ñaar yu ñàngal ñaar yu doy waar lañ ko ci waxal fii dañoo wax ne Adji Sarr am na ñett yu doy waar ñu ne Ousmane Sonko am na juróom-benn yu doy waar juróom-benn yi ñaar yi nekkoon ci suuf nga xam ne dafa tàng jër ci sama xalaat waaye dugalu ko nag ndax waxi gendarme la loolu loolu dañ na néew ci. kon moo tax commandant bi bi muy corriger su fekkoon lor Ousmane Sonko moo tax kon lii la ci def lii nii ci suuf na leen ko Ousmane Sonko jox. mais comme bi may ñëw dama dama cohérent dama leen damay def tout pour expliquer rek mu leer mais nekk ma fi di chargé man ñii c'est pas un problème man li ma intéressé woon rek mooy nee na yi koy setal génne nañ ko wan naa leen li koy setal ma nga fa lii nga xam ne gendarme yi ñoom dañoo jàpp ne day dugal Ousmane Sonko mu yaakaar ne xarita xaritam boobu bindu ko ci muy capitaine Touré wala ki capitaine Touré jox bindu ko xaritam moo ko bindal juróom-benn yii te boo ko liiree ba génne ko ci Sénégal soo moytul li nga changé xarit waaye yor nga ko liir ko non ñu ngi maanaam liiral non du ko liir non bàyyil noonu xam nga il faut ñu déggoo ci dara li son Sonko wax ni man li koy setal dama koo génne man loolu moom fi loolu lay leeral mais lii dugal Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tudd ko moom tuddu ko baal naa ko dama ko tudd bu leen sonal seen bopp non dama préparé lii de euh, euh, non euh, point de presse bi dama ko préparé bay ba mu leer leen duma ko wax fi ne non bu leen sonal seen waaw ah, xam nga Ousmane Sonko dina ko génne leneen li si des photo yi nañ ci ñëw photo yi ñetteel bi la bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti étape par étape la ñu nekk pour le moment daf ni Serigne Bassirou Gueye dafa falsifier procès verbal bi loolu complot la ni mu ko falsifier mooy dafa am lu ko doon setal ma dindi ko won naa leen ni leen waaw setal naa sama bopp won naa leen man du ma setal sama bopp parce que taxalu ma mais won naa leen ni leen loolu amul nee leen ñett yi mu wax nii dama ko génne benn bi xam naa danga maa suivrul madame benn bi mooy li mu wax ni aji Sarr bu Ousmane mi ngi ñëw may setal ma ne loolu mi ngi fi dañul bu ngeen demee ci PV dañul li may wax nii dama ni c'est un haut fonctionnaire moo jàkkaarloo génn ku assermenté maa li leen dañul parce que bu ngeen demee bis ba xool ne Adji Sarr fi muy waxee ci SMS